الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk yi ñu fas yéene ñëw rek euh, wéyal ci formation bi nga xam ni si la nekkoon ñu tolloon ci li ñuy tuddee macro te euh, enregistrement bi passé ñu jot cee gis euh, ñu koy créer waaye plus précisément nu ñuy def macro boo xam ne dañ ciy ubbi ak formulaire ak ñetti façon mode d'affichage yi nga xam ne amoon nañ ko ci muy modification ak ajout ak euh, lecture scène euh, ñu fas yéene wéyal rek di euh, ci ci macro yi ba tey waaye cette fois-ci dañuy gën a xóotal ci macro yi d'abord ñu tëj formulaire bi ñetti ñeenti li ñu gisoon ci enregistrement bi nii mooy bi passé mooy ñetti macro yi bu nekk lu muy jariñ ak li lu léegi dañuy continuer rek di liggéeyaat ak ñetti yi parce que ku ne xam na ni euh, am na lu war a tax nga créer macro ajout wala macro le macro exception wala macro modification par exemple bu fekkee da nga nekk yow sa supermarché par exemple di jaay peut-être ki ki nga xam ne moo nekk ci caissier moom mën naa soxla bi kese ajout kese ki nga xam ne moo war a ñëw euh, auditer euh, par exemple vérification def yooyu yëpp mën naa moom bi rek lay soxla waaye ki nga xam ne mooy comme administrateur wala ki nga xam ne moom mooy Euh, borom supermarché bi mën naa soxla mode modification bi loolu moo taxal boo seetloo ci supermarché des fois nga gis ki ni caissier bi bu juumee day am ku mu woo mu ñëw euh, euh, man koo permetre mu mën a supprimer fa mu tolloon mën a ubbiwaat beneen facture bu bees donc loolu daanaka man nañ koo comprendre ci ñett yi nga xam ne moom kii moom mooy caissier bi kii ki nga xam ne moom lay woo mu enregistré pour mu modifier pour mu permettre ko mu mën a effacer la mu la supprimer la mu defoon pour mën a indiwaat facture bu bees kii mooy ki nga xam ne par exemple moom moo war a ñëw auditer liggéey bi donc euh, li ñu jublu ci ko partie bi rek mooy lu jëm ci wàllu sécuriser base de données bi nga xam ne ku ci nekk rek dafa am loo mën a am accès ak ku ci nekk daa am loo xam ne moom nga ci mën a def ak loo xam ne doo ko mën a def léegi pour def loolu euh, mën na noo supprimer macro yi rek ndax du ñu soxla di am ñetti macro pour def loolu waaye plutôt benn macro rek la ñu créé léegi moom mooy contenir Euh, lépp ñetti kii yi nii moom moo koy contenir léegi dañuy supprimer macro yi ni ñu defaroon léegi ñu dem supprimer créer macro boobu noonu léegi bu koy créer fii la ñuy ñëwaat ci créer rek la ñuy jaar toujours léegi bu ñëwee ñu bës fii macro waaye cette fois si euh, du mu ñëw rek créer macro boo xam te ne bii action lay commencer comme fii nii waaye dañuy créer macro boo xam te ne bii ci euh, déroulement de programme bi nga xam ni. macro mini bi ñuy soxla fii la nekk waaye mu mu ngi nekk macro si maanaam euh, fonction logique si mooy gis nañ ko fii mën nañ ko fa jëfandikoo léegi ñu was ko ubbi ko léegi boo ñëwee eh, yan mooy critère de de de déroulement bi nga xam moom ngay topp dañ ko naan par exemple boo ubbee macro bi ubbee ko directement boo ubbee base ubbee ko directement ak macro bi pour ubbi formulaire bi waaye euh, demander d'abord ki ki ki kiy dugg bu fekkee ki nga xam ne mooy caissier par exemple day dugal mot de passe am mu daal di koy yóbbu moo du ajout de données nga xam ne moom ajouté rek lay mën léegi ki nga xam ni moo ko ubbi bu amul mot de passe boobu mu laaj ko ndax yow yow yaa ki nga xam yaa am autorisation euh, def ay modification bu nekkee kooku tamit amul kiyam amul amul mot de amul mot de wala du kooku mu ni ko kon mu permettre ko juste mu ubbi ko ci lecture sa nga xam ni da lire rek waaye du mën a ajouter du mën a modifier léegi loolu dañ koy créer mooy dañuy ñëw fii nii ñu ko si par exemple daal ñëw fii nii ci kii bi nii euh, signe bi ñu gis moom la ñuy bës boo ko ubbee mu ubbil la générateur d'expression léegi fii ñu ngi koy ci expression ya éléments yi mu nekk muy toll ci mu ngi nekk ci si fonctions ci fonction yi léegi ñu tudd ñu dem ci fonction intégré yi ci fonction intégrée yi ñu ngi fay dem fii nga xam ne mooy message léegi su ma ñëwee fii message ma bës ko mu bi ma fii ñetti euh, choix man ba entre bi laay jël léegi ma def ci double clic mu daal ma koy ubbil fii nii maanaam expression bi genre programmation la mais li ci nekk moo ngi nii léegi man fii li ma ci soxla rek mooy ñaar laa ci soxla mooy prompt bi ak titre bi prompt bi mooy lan message bi nga xam ni moom lay wax bi nga xam ni moom mooy ubbi euh, access message bi nga xam ni fenêtre bu ndaw bi ubbeeku ci kanam message bi moom moo ko ci wax lu mu ci war a def léegi man damay ñëw ubbi message bi supprimer prompt bi léegi dam su muy bind message bi dama koy def entre guillemets maanaam damay supprimer yi entre guillemets laa koy def guillemets mooy ñaari point yu ndaw yi su ma defee entre guillemets ubbi ñaari guillemets daal di koy bind ci diggante bi par exemple euh, man ni ko saisissez par exemple votre mot de passe saisissez l'un, l'un, deux, passe, saisissez le mot de passe vendeur, par exemple. Le mot de passe vendeur, léegi def ko entre guillemets bi léegi après fii nii titre fa fenêtre de dialogue bu ndaw bi lay doon léegi moom it dama koy def nii rek daal koy def entre guillemets moom it koy def ko mot de passe. Eh, nii léegi Fodé Diallo daa koy def pour tëj kii bi nii léegi yeneen expression yi nga xam ne soxla ko dama mën naa leen a supprimer moom yëg si mën naa supprimer eh, dama juum ci titre bi laa ko doon bind mot de passe ma bind maa ko doon bi léegi damay ñëw eh, mën naa supprimer lii d'abord ak ma ñëw bi nii ma def ko mot de passe damay def ubbi ji bi d'abord ma bind mot de passe. di tëjaat guillemets bi waaye fii comme expression la faaw ma ma tëj expression bi ak euh, parenthèse bi bi parenthèse faaw ma tëjaat ko léegi su ma pare expré lii pare na léegi li may léegi maintenant nag fii laay defee ne ko bu fekkee euh, maanaam fenêtre de dialogue bi ubbeeku li ci waa ji dugal daa tolloog par exemple ABC ABC bi dama koy def a entre guillemets moom it parce que bu fekkee dafa tolloog ABC bi léegi lan lay def bu fekkee li mu dugal la léegi man ko bu fekkee ABC la dugal kon léegi fii laa koy wax lan lay def ma ubbi formulaire mu ne ma alors kon lu muy def ma ne ko na ko ubbi na ma ubbil formulaire bi léegi bu ubbee formulaire bi man formulaire lay ubbi ma ne ko formulaire client lay ubbi comme que moom bu dee mot de passe ABC bi moom ban autorisation la am mooy autorisation ajoutée nga xam ni moom mooy caissier bi. léegi euh, boo ko defaree boobu nga xam ne moom bu ñëwee dugal mot de passe ABC bi li mu koy may mooy mu mën a ajouter waaye du mën a euh, supprimer wala muy retirer nga xam ne mooy ka mooy caissier par exemple léegi après bu fekkee nag damaa bëgg defaat beneen condition euh, nga xam ne bu fekkee moom mot de passe bi a ABC lan lay def ma ne ko kon bu fekkee dafa dugal mot de passe du ABC ma laaj ko kon ndax yow yaay ki nga xam ni sinon kon. sinon si yow yaay est-ce que yow yaay ki nga xam ne kon yow yaa am autorisation def des modifications wala mel noonu léegi boobaa tamit dama koy joxaat fonction bi ba tey ma ni ko sinon si bu dee euh, moom fonction bi muy laajal ba tey mooy message message ma ne ko ba entrée double clic daal di ñëw comme ni ma ko ñu soxla ma ko leen di supprimer ko fii rek euh, ma bañ a fàtte def directement rek bi parenthèse bi. léegi après ma ñëw ma ni ko prompt bi mooy ba tey ma ni ko saisissez euh, le mot de passe admin na ko gàttal rek le mot de passe admin mooy le mot de passe ki nga xam mooy administrateur bi toujours ma def ko entre guillemets léegi après fii ma def ko euh, entre guillemets moom it def ci rek m mot de passe nga xam ni daanaka euh, damay def ni rek pour gàttal léegi nag bu fekkee bee du ma ne ko bu fekkee mot de passe admin bi muy doon moom Euh, ABC la waxoon fi mën nañu koo def rek entre guillemets def ko par exemple x y z nga xam ni boobaa day dugal x y z léegi boobaa lu muy def bu dugalee x y z lu def mu ne ko kon ba tey ubbil ma formulaire bi léegi bu dee ubbee formulaire bi euh, ban formulaire lay ubbi mun ko formulaire client bi euh, ban mode la koy ubbee comme que mooy administrateur mode modification day am droit def ci lépp léegi. caissier baa ngi ko ci euh, administrateur baa ngi nii léegi nag bu fekkee nag du bee du bee ma ne ko kon sinon ma ajouté beneen fo beneen beneen critère mooy sinon euh, booba euh, ubbil ma fii moom boo defee sinon automatiquement du la yóbbooti la jox yenn fonction waaye automatiquement da ngay wax da ngay indi li nga xam ne moom moo ci moo moo fa yem léegi nga ne ko mun la sinon bu fekkee ñaari yëpp wéerul mu def ko ouvrir mu formulaire bi ban formulaire la lay ubbil formulaire bi voyez, forme client cette fois-ci, comme quelqu'un a un mot de passe, ça veut dire que autoriser un compte, mu def ci ajouter wala modifier donc dañ koy def kon mu nekk lecture seule léegi fi mu man nii mën na ni euh, formulaire bi pare na léegi ñu def sauvegarde enregistré ko macro plutôt léegi mu nekk macro final par exemple euh, macro final la def ok enregistré ko léegi par exemple ñu testé wala ñu koy kii ñu testé ko léegi bu ñu ñu def. Euh, double clic ci ubbi ko mu defar la saisissez le mot de passe vendeur maanaam ki nga xam ne mooy euh, euh, jaaykat bi léegi moom mot de passe la woon ABC mu def ABC tout en minuscule ndax bu ko defee majuscule du ko reconnaître léegi mu ubbi ko ko en mode ajout ndax moom day mën a ñëw ajouter ay éléments ak mu def def ay facture am beneen bi mooy ñu double clic waaye man cette fois ci admin bi la. admin bi la moom x y z waaye mot vendeur moom la état bi a dugal waaye comme que moom admin la du ko mën a dugal du ko dugal léegi day dugal moom mot de passe am dugal x y z donc gis nañ ni x y z bokk la mot de vendeur bi te fii mot de passe vendeur bi la laaj donc bu ñu defee ok automatiquement dañuy jaar ñu saisir le mot de passe admin léegi cette fois ci ma def x y z mu daal ma koy ubbil mode modification nga xam modifier ajouter def lépp après euh, ñu dem ci beneen kii bi su ma ñëwee ubbi base de données par exemple daal di ubbi euh, x y euh, abc bi du ma admin du ma du ma vendeur bi ma def mot de passe bi mu ne ma dugal mot de passe bi ma def nii wérul automatiquement dafa koy ubbil en mode lecture simple nga xam ni maintenant da koy ubbi juste ñu mën a lire waaye lii ba sécurité mais pas ndax euh, premièrement gis nga ni onglet euh, de navigation bi mu ngi fii donc boo bëggee def modification ci ci lu manti doon mën ngaa ñëw par exemple même boo ko mënta defee fii mën ngaa ñëw ubbi directement sa formulaire daa def say modification yi nga xam ne mën nga ci soxla parce que fii euh, def ci say modification donc amul sécurité léegi pour sécuriser base de données bi dëgg dëgg dëgg dëgg dañ koy def de telle sorte que comme ni ko gisee woon d' abord bu mu ubbee base de données automatiquement rek mu ubbi ba final bi nga xam ni du jaar ci yii loolu benn mbir la waaye beneen bi mooy dañuy def de telle sorte que aussi euh, volet de navigation navigation bi du fi nekk euh, bu ko defee nga xam ni euh, ki nga xam ni moom moo ci accéder soit li muy man rek mooy soit mu nekk kuy age ki nga xam ni mooy vendeur bi a mu nekk moo di ki nga xam ni mooy administrateur bi wala mu nekk ki nga xam ni moom juste day par exemple audité bu ko defee nga xam ni yii yëpp dootul disponible léegi ñuy def bu boobaa mooy euh, dañuy ñëw d' abord créer euh, macro bi nga xam ni moo ñu permettre déjà ñu euh, ubbi macro bi ñu automatiquement à l'ouverture te comme ñu ko gisoon ci leçon bi passé mooy fii exécuter macro la ñuy choisir bon ñu choisir exécuter macro ban macro la bëgg mu exécuter na ko macro final jeex na moo ñu enregistré ko bu ñu defee enregistré koy jox tur oto exact comme ni ñu ko gisee woon léegi après ñu def ok léegi pare nañu bu ñu paree mën nañoo tëj kii bi ñu fermer base de bi bu ñu fermer base de données bi ñu ubbiwaat ko euh, léegi moom ubbee automatiquement ñëw na la indi na la mot de passe bi pour wala ubbi euh, macro bi léegi leen defoon mooy dañuy ñëw dugal mot de passe bi. du moom la Mourad mi def nii ba tey mu bind ko léegi gis nañ ne moom automatiquement macro bi lañ ubbil waaye ba tey tamit comme ni ñu ko waxoon lii yëngi fii léegi pour éviter lii di affiché wu à l'ouverture euh, li ñuy def mooy dañ ko naan ñëwal fii nii nga defal ma ko nga ñëw fii ci option boo ñëwee option nga ñëw fii ni ko base de données active ci base de données active bi lu ma bëgg d'abord mooy à onglet euh, navigation bi bu mu feeñ bu feeñ bu ko defee ma def ok premièrement mun ma ndax damay tëj base de données pour mën ko appliquer faaw ma tëj ko pour ma appliquer wu ma ne ko ok daal di ñëw tëj sama base de données su ma ko ubbiwaatee onglet navigateur bi feeñatul ma def ko repasse tout juum noonu ubbi ma lecture seul léegi ba tey feeñut waaye tamit gis nañ ni yeneen bagages a ngi fi euh, mën na noo jéem a dem xool feneen fu ñuy jaar ba xam mën nañu ubbi ay base de données testé euh, ndax am na luñ fi mën a def ndax boo defee ñëw euh, anglais navigateur bi feeñ déedéet waaye ba tey tamit feeñu fi waaye ba tey nit ki mën na ñëw fii daal def fichier daal di ñëw ni ko euh, par exemple option ñëw option daal def actif daal di koy ñëw ni ko affiché ma anglais navigation bi bu ko pare daal di delluwaat ci base de données bi dugg ubbi table yaag yooyu modifié ca léegi pour éviter loolu am daa am lu ñuy def li ñuy def mooy base de données bi dañuy def dañ koy tëj ba pare bu ko tëjee ñu dem fan ko enregistré ñu modifier extension bi nga xam ni moom la moom lañ ko moom la yor léegi pour ñu pour ñu pour dañuy copier bii ne rek ñu def ko copier ñu ko lewaat ko sur place rek mu defal la ko copie léegi extension bi la ñuy euh, changer pour def ko comme genre application boo xam te ni bu ubbeekoo dootul affiché wu dootul permettre sax dem ci modification yi léegi li ñu njëkk a def mooy dañu ñëw fi affiché extension yi euh, bu ñu affiché extension bi ñu def ko F2 ci kala kii clavier wala mu jublu double clic ci kii bi euh, mu jox na ko nii ñu def B bi dindi def ko ab R te xam ni maintenant comme application exécu exécutable lay doon. léegi boo defee ok mu enregistré ko nga daal di double clic ubbi ko boo ko duggee automatiquement euh, lii mu lay wax ni euh, alerte la rek waaye c'est pas grave nga ubbi quand même léegi nga def sa saisir sa mot de passe par exemple nan dugal mot de passe bu normal ñu dugal mot a passe bu normal ñu jox ñu ko lecture seul cette fois ci euh, gis nga ni fichier ngi fi waaye ñu dem fichier xool bu ñëwee fichier option sax nekkatu fi pour nga mën fee def dara ci kii bi option de confidentialité fi nekk mun la permettre nga dem changer dara. donc nii mën nga ne sécuriser une base de données mais ba tey euh, xam na ni pour mieux sécuriser la base de données gis na ni am na ñetti utilisateur ci base de données bi am na utilisateur euh, ki nga xam ni moom mooy vendeur bi am na utilisateur admin bi am na utilisateur ki nga xam ni mooy par te bu mu seetloo ki nga xam ni moom mooy vendeur bi am na possibilité ajouter waaye amul possibilité modifier ki nga xam mooy admin bi am na possibilité modifier am na app donc moom mooy ki nga xam moo ci am accès exclusive ki nga xam ne nag mooy auditeur par exemple moom accès lecture képp la am instant bi nii tamit comme vendeur bi moom it amul accès euh, modification kon donc te admin bi am na accès modification modification kon kooku vendeur tamit war naa am lu ko ak lu ko protégé tey jii bu ko defee nga xam ni base de bi kenn du ci def dara à son si par exemple. nga xam ni même admin bi sax bu fekkee moom mën na modifier waaye du ci mën accéder à tout moment léegi pour ñu def loolu dañuy utal base de passe boo xam te bi moom la ci laaj bu bi nga xam ni vendeur bi moom moo koy yor mooy mot de passe nga vendeur bi moom moo koy yor xam te jii bu admin bi ñëwoon ci ginnaaw bëgg accéder bi accéder ci base de données bi du ci mën a accéder mu dugal ko mot passe mu nga xam ne modification bi def koy bi Eh, pour tëj base de données bi dañuy ubbi access ci boppam bu ubbee access eh, ñu daal di eh, ñëw ubbi base de données pour créer ko mot de passe mais pour créer mot de passe base de bi dañuy jaari fii ñuy tuddee ouvrir bu ñu ñëwee fii ouvrir ñu def parcourir bu ñu defee parcourir ñu dem choisir base de bi nga xam ne moom lañ bëgg mu am mot de passe base de bi fii la nekk léegi dañuy ñëw choisir base de données bi bëgg mu am mot de mooy base de nga xam ni moom lañu créer sauvegarde bi. léegi sauvegarde bii nii euh, dañ ko bëgg a créer mot de passe léegi dama koy def ni mo fii laa ñëw ci ma def ouvrir ouvrir en exclusivité su ma ko defee ouvrir en exclusivité ma daal di ñëw euh, dugal sama mot de passe comme vendeur par exemple mu daal di ñëw nekk A B C mu ubbil ko c'est bon léegi maintenant ubbil ma ko comme comme comme euh, vendeur. léegi ma ñëw fii nii def fichier su ma ñëwee def fichier ba pare daal di ñëw def fii information ci information bi fii laa ñëw ñu ko chiffré avec mot de passe léegi ma defal ko ABC daal di koy répété ABC daal def ok daal def ok léegi ma tëj sama euh, base de données bi rek ci boppam jërë ma tëj access ma tëj base de données bi su pare ma daal di ñëwaat ubbi base de bi mu laaj ma mot de passe pour ubbi ko accès d'abord léegi ma ko def nii ma ubbi ok maintenant kan la ndax euh, vendeur bi la def ABC wala du vendeur bi wala comme ci man di doon def mot de passe defar mot ma ko lecture seul léegi cette fois si moom ñii la nga xam ni moom ngay protéger base de données bi à cent pour cent léegi nag euh, beneen étape bi nga xam ne def nañ ko sànq mooy bi ngay modifier lettre bi. c'est après boo defee li lépp nga koy doog def bu ko defee base de données bi ne ko complet sécurité bi complet léegi mën nañoo ñëwaat ñu defaat ko rek léegi bii mën nañ ko déjà enregistré ko ñu fermé ko comme def nañ ci liñ ci def ba pare mën nañoo fermé euh, base de données bi léegi ñu ñëw fermé access léegi bii nii base de données bii nii si lan defar kii bi si lan defar euh, mot de passe bi léegi dan koy copier moom ñu copier waat ko comme moom moo am mot passe bi yépp kole boo kole mu defal la ko modifier la ko ñun fii nii copie bi da koy def euh, base de données finale par exemple léegi ñëw fii nii daal di changer bi def ko R oui léegi bu base de données bi dañuy seet automatiquement mot de passe initial bi ak la ñuy laaj léegi après c' est par rappel ñu koy bàyyi xel bu ñu paree léegi bu dee vendeur bi la mu dugal mot de passe am ABC mu dal ko ci biir page de données moom mu ñëw def ay kiyam waaye boo seetloo moom bu ñëwaatee fii tey jii nii fii amul leen lu mën a def du fi mën a def dara bu paree def na ay enregistrement am dugal na ay client am et tout nouveau par exemple ñu la def na Fall prénom Diop ville par exemple Dakar. téléphone tel tel tel tel tel pare na ci moom bu paree def comme ajuré nga mën def bu paree bu paree enregistrement bi mu def contrôle S sauvegarder champ euh, numérique bi ñu def nouveau enregistrement encore valeur globale pour ce champ euh, ban champ là vous avez peut-être entré du texte dans un champ numérique ou un nombre supérieur à ce que permet Ăl superiores, când gol fi el în un restaurant, mă def cum numărul normal. 77, 777, 499, la def sauvegarde, mă am cu donc, dans un restaurant, dans ce cas-là, nombre de caractères, nga xam ne moom la numéro de téléphone du mën a jël. Donc loolu aussi c'est possible de le faire. léegi bu paree moom def defaan lu ko enregistrement nga xam ne moom lii rek la mën di def moom bu paree comme moom la lii lay lii lay lii nag lay lay lay mën a def après bu pare tëj ci yom base de léegi ki nga xam ne mooy admin bu ñëwee bëgg a def dara moom day ñëw daal di ñëw bu demee euh, ñu tëju fii mu ñaat ñëw euh, ubbiwaat base moom bu ñëwee bi comme admin administrateur bi bu ñëwee def euh, x x y z par exemple mot de passe jumla goto pasal kimlawo ɗum d' abord abc mu dugg ba pare léegi après si lay a laaje mot de passe ban lay soxla moom x y z mooy mot de passe mu def x y z mu ñëw mu def x y z léegi moom nag si lay duggee moom mën ah, a def accès exclusif boo gisee la woon léegi sept ñëw na ah. ndax am na buñ ci yokk cette fois ci moom dina mën a ajouté dina mën a def lépp waaye pour mu mën def lépp faaw mu am mot de passe bi nga xam ne moom la léegi mot de passe bi nga xam ni kii rek moom moo ko yor vendeur bi pour se protéger aussi nga xam ni admin bi du mën a accéder ci base de données bi à son insu donc c'était un li nga xam ne bëggoon a dolli ci macro bi mooy sécuriser base de données bi euh, moo xam sécuriser ko pour côté vendeur bi moo xam sécuriser ko pour administrateur wala sécuriser ko pour nga xam ni mooy euh, auditeur wala ko xam ne dafa soxla xool information exactement am droit modifier wala muy ajouter. donc ci leçon yi di ñëw rek ñu jéem a jaar jële wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin